dalle nag jàmm mbokk yeeg xarit yi ci ëttu yéenekaay yi li ci gën a fës bokk na ci coowal politique ak lu ñeel mbëkk mekk doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan ñu koy do rek yéenekaay bii di Sud Quotidien moom mu xëy àdduwaat ci mbirum gouvernement bu yees bi nga xamante ni Macky Sall fas yéene wul yam ci Idrissa Seck ak kii di Omar Sarr fas yéene naa ubbi buntam ba ñeneen ñëw moo waral rek yéenekaay bi xaatim ci xëtam bu njëkk Macky Sall dynamite l'opposition ndaxte yéenekaay bi moom lu mu jàngat rek mooy que ne coalition Idy 2019 ak coalition jot na bu Ousmane jamono ji dañoo tas ret moo waral laas dem ba tey naan cascade de démission Maki éclate jot na ci yene yene kay di la tribune dafa Aduchi ci carton gi nga xamantene ci ni président Macky Sall na koy Andal, rax ci doli ci xarañteefam di tour lëndëm nga xamantene ci ni ñom waral mu bind ci bu Macky la star de l'opposition Yene bi di la tribune yamul fofu. mo ngi naan jamono ji ki jafe-jafe yu askan wi di jankontel dafa melni ni seeni ni ak seeni yoxo ci dem bu président Macky Sall Andal, bay teggu wundel ñu langue politique bi mo waral mu le chef de l'État, un véritable ingénieur politique qui sait tase chez des tracteurs ba tey lu ñeel coowal gouvernement bu yees bi Macky Sall teg bu yàggul Walf Quotidien moom lu mu xëy àddu mooy coow lu amul àpp bu am foofu ci biir Benno Bokk Yaakaar ci jamono jooju Vox Populi moom dafa jox kàddu Alioune nekkoon fi ministre conseiller bu président de la République moom mu jàpp ne Idrissa Seck kenn mënu koo suufeel wala nga koy ñàkk bàyyi xel ndaxte moom xarañtee fa Macky mun mënam fu mu nekk rek dinañ ko bàyyi ba tey ci biir yéenekaay bi di Idrissa Seck wala Omar Sarr ak yeneen i personnalité politique yi fare woon ci kujje gi dugg nañ ko ci gouvernement Macky Sall bi amul benn wor wala ñu naan ay tëgg mbot la président Macky lenn moo ko tax a jóg mooy xool démocratie sénégalaise bi nan lay gën a ñoŋee yéene kaay bi nekk ci immeuble Ilimane Ndour l'observateur moom ne xaar leen ma ñëw yéen ci lool ngeen di wax may leen ma nopp ma àddu ci mbirum Mimi Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Makhtar Cissé mi nga xamante ne jamono ji of nag def leen óolu waaw yéene ndaxte président Macky Sall fas yéenewul yombal mbir yi benn yoon le soleil yéene moom xëy wax ci wàllu mbëkk bi naan jéye yi ëpp na lool yamul foofu mu sekk waxtaan ak ñi nga xamante ne mosoon nañ def immigration clandestine maanaam mbëkk mi ba tey ci biir yéene bi ñoo ngi xamal ni ca Mbuur ak ca Joal foofu moom jamono ji ñëpp ñoo ngi ci njàkkare ndax mbëkk mi moo waral union européenne fas yéene delloo si ñëpp ñi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi foofu ci Europe ñu jóge woon libération moom dellusiwaat ci li nga xamante ne moom moo ñu ñàkk seen bakkan ci mbëkk mi moo waral mu xëtam bu njëkk l'impossible dëy enquête del soit bu baax baax ci histoire Barça wala Barsakk di fàttali nit ñi naan atum 2006 ba japp atum 2020 lu ñu constaté fukki at ak ñeent moo ngi nii mbëkk mi da fay melni day gëna bëri doole ndax te diirub ñaari fukki fan ak ñett lu tollok jooni juroom ñaari téeméer ak juroom benn fukki ak juroomi doomi aadama ci ay sénégalais daal dina ñoo ko fi daal di utali fële ca Îles Canaries mbokk yi fii la ñuy ak yeen lu gënoon fës ca tuyéene kaay jaa ngeen jëf kay